feneen fu ñu xamul te mu nekkul lu ñu autorisé ci parti bi bu ko kenn gëm bu ko kenn daal di déglu. ñoom ñooñee nga xam ne ñoom ñooy les leaders du parti saa su nekk bu amee lu xew dinañ ko daal di communiquer ñëpp daal di koy dégg ñëpp daal di koy gis bu ko defee du am réero ndax am na ci ñu bëree bëri ñoo xam ni ci manipulation la ñuy daal di dox di gëmloo itam sénégalais yi que ne am na lu bees lu xew fekk ne loolu yëpp dara amu ci ñoom ñoo ko daal di créer ngir daal di taxaw wala yàq li ñeel communication bu ñu war def ci mbir mi lu ne mel nag baax na lool ci parti bi ndax dina tax ñu daal di recadrer képp koo xam ne da nga ciy daal di addu te lépp looy wax itam mu daal di lay wóor bu ko defee sénégalais yi nga xam ne ñooy teew lu bëgg lool Ousmane Sonko bëgg am ay nouvelle ci ñoom dinañ ci am ay nouvelles yu wér te wóor yu kenn dul naatable waaye itam nouvelles yu àndul ak benn manipulation ndax ñëpp gis nañ fan yi ñu génn publication bi ñu def communication mu ci ŋàññ kilifa diina yi fekk ne du moom fake news la dafa am beneen Samba Boy defkatu ñaawteef boo xam ni moo daal di liggéey lu ni mel te loolu bokk na ci li nga xam ni mën naa jur ay fitna ak i jéeya ba tax sax ñenn ñi jotoon nañ cee réagir fekk ni du woon El njaay Ndiaye manipulation la kon nag lépp luy génn ci information bureau politique bu PASTEF jaaree ko ci seen secrétariat national à la communication dañ ko daal di xamal Sénégalais yëpp bu ko defee ñëpp daal di